salaamaaleykum mbokk yi tey jii di àllarba juróom-ñeent fan ci weeru koor di guddik fukkeel ga sëriñ Sow wax na ci xorotul ayn guddik fukkeel ga ku ci julli ñeenti rakka rakka bu ci nekk gannaaw Faatiha nga jàng ayatul kursi benn yoon inna anzalnaa fukki yoon ak ñaar bokk na ci nga neen naafila googu bala moo jug fa ko doon jullee des na ko jégal bàkkaaram yi njëkk ak yu mujj te des na ko bindal tuyaabay juróom fukki nit ci way dëggal ak tuyaabay juróom-ñaar fukki nit te bala moo génn àdduna dana mos bokk ci meññeeti àjjana te des na ko